ni provocation est-ce que mës nga dégg président Macky Sall am lu mu jotee ak takk dee te foofu dama fay taxaw yow Mamadou Awa. Mhm. président euh, du ma ko sax président. Ousmane Sonko président Sonko. en non président Ousmane Sonko il est le président d'un parti. man dama ko koy nangul en toute démocrate mhm. mu mën a nangul Abdoulaye Wade secrétaire général d'un parti man nangul président Macky président de la coalition mais à la seule différence il est le gardien de la constitution yàlla moo ko dogal ko nangu donc quand je dis Ousmane Sonko moom bu lu xori Ousmane Sonko tey ci président Macky Sall la ñuy wax nañu waxante dëgg te yaa rek a tax ndax lan loolu parce que si sama gis-gis mooy dañ naan il est un opposant et le président la sécurité de tous les citoyens sénégalais incombe à celui qui a été choisi et il a choisi Antoine Diome mu toog place Washington ba nekk ministre de l'intérieur tey jii Sonko otoom boobu bu ñu ko fa fekkul woon génne ko fa. Hmm. lu ko fa mënoon dal tey dañ naan c'est le président Macky te moom sax il a dit il a dit qu'il a été sauvé par les forces de défense et de sécurité gis nga waxtaan. sauf que la manière. ah mënoon nañ ko gaañ. ah au contraire loolu xam nga lu lay wan l'état reste et froid xam nga loolu lay wan. yaa a une différence entre les hommes d'État et l'État en tant que tel loolu lu lay wan y une différence entre les hommes politiques et ceux qui incarnent l'État en tant que tel bu du woon loolu kon Abdoulaye Wade bu fi jógee lépp soox wala Senghor jóge fi lépp soox wala Abdou Diouf jóge fi lépp soox loolu moo lay wara ne boo bëggee yëf yi na nga dal boo bëggee yëf yi bul xas ñëpp boo bëggee yëf yi bul saaga ñëpp boo bëggee yëf yi respecte les institutions parce que bés dina jot amaana di nga ci toog wala amaana sa mbokk di nga ci toog te di bëgg li nga xamante ne mooy jiiñu état nga fekk ko war foofu. xam yaa ngi naan ma bokkuñu Macky Sall c'est le président de la République euh, il a besoin d'être encadré et il a le droit d'aller voir l'état d'exécution euh, li nga xam ne moom moom la def. Mhm. Euh, d'accord man boo ma ko waxee mën naa ko dégg mën naa ko gëm comme mën naa ci bañ a d'accord mhm. mais man sama sama sama personne amul solo mais ñi ngeen am

envers ceux qui assurent notre défense. da ngeen waroon a ah, da ngeen waroon a rafetlu ah. posture am keroog ah. moomu daaw tey nag dama ñëw civilisé wax naa la. allons-y. nag ma bàyyi ñu civilisé nag ñu def suñu débat. donc je veux dire que Ousmane Sonko ak ku mën a doon quiconque laa wax qui ne respecte pas les lois et règlements ak ku mën a doon dañ la ciy teg. am na ñoo xamante ni yàlla moo def ñu tegu fenn ñu am ay prérogatives ñu ciy bénéficié wu nañ leen ko nangul boo nangulu nit cër kenn du la nangul ëllëg sa cër. dama ne ay opposants lañ war nañu wax war nañu fustiger war nañu leen encadrer je suis d'accord waaye dama ne am na loo xamante ni c'est abusé kooku c'est mon c'est ma conviction comme un opposant peut avoir une autre avis mhm. loolu daf ñuy pousser si vers un fait mooy il faut qu'on arrête l'apanage de la violence d'abord la deuxième chose mooy l'apanage de la pensée unique moom daa wa seetal depuis un moment ku farfe ne ñu xas na mbaa ñu saaga la mbaa ñu xarab la mbaa ñu wax la wax ju ñaaw. mais loolu tàmbaliwul bu yàgg. ah li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a wax mooy am na a na lu ko indi. Pastef existe depuis combien d'années. léegi yow nit ku nekk nee nañ ku nekk dos au mur da ngay song. li ma bëgg ah. wax mooy li ma bëgg wax mooy Pastef existe depuis quand ban année lañ ko créé woon xaw na yàgg xaw na yàgg mais li ngay wax ni di ko dénoncé ñaata at la ñaar ñett ci ginnaaw waaw mais parce que les premières années Sonko dafa tranquille nekk impôt di liggéey créé parti bi organisé dara dalu ko yu jékki-jékki xañ ko euh, impôt yi domaine ko fa tu deviens un juge ah non loolu am dañ ko dañ ko xañ impôt na lan lañ ko ko xañee est-ce que yow moom da ngay ay kon ku signé radiation bi révocation bi kon léegi da nga est-ce que l'administration tu n'as pas des droits de réserve est-ce que n'importe qui peut devenir un fonctionnaire non attention ku ko use de tous les voies et moyens droit lu mu ko bu fekkee teg daan boo xamante ni waruñu ko teg et d'ailleurs comme je te l'ai dit j'ai pas vraiment envie d'épiloguer sur réellement ce monsieur en tant que tel le problème mooy ce dont j'ai envie de parler Mamadou Awa c'est quoi mm-hmm. mooy y a